pneu yi. waaw non importé importé importé pneu yi nga xamante ne moo dugg fii. mënut a ñàkk pneu yi mënut a bañ a ñëw. parce que ñun waaw parce que ñun ñun defaruñ ko noonu nag. te pneu bu jënd ay pneu occasion waaw je sais non pneu am na yu gën pneu bu bees. Mhm, mhm. ça c'est vrai. pneu occasion am na yu gën pneu bu bees te pneu bu bees qualité ci bus ay deux cent deux cent cinquante mille lay jar. benn benn bi ba pare. xam nga <laughs> xam nga xam nga ñoom ndeysaan malheureusement dañ fee jaar. ñoom ñooy ñan. mooy état bi fi nekk. ah d'accord ok. dañoo jaar ñoom amuñ seen lam yi amuñ barke luñ tudd day mujjee seer luñ tudd rek day mujjee sax seer. du am suivi suivi du am xool xool non dañuy wax pour defar far wax mu yàqu ba ñu waxee location dafa mujjee seer ñiy génne nit ñi di leen teg ay diil damaa bëgg a peinture defar fekk dañ ko bëgg a yokk ñoo ko fi tuddoon parce que seen lam yi amul barke. ñu wax pëno tey pëno bu ndaw. moo ci gën a tuuti te 7000 nga doon am am pneu. occasion. parce que mooy nañ ci pneu amatul jafe na port bi daa seer ba yokk ko pneu man pneu ñaari junni laay jëndee benn pneu waa léegi pneu bu màgget bu mënee jar ñaari junni pneu bu bees di jar juróomi junni. Mhm. te d'accord nañ lu bees ak lu màgget nag. d'accord bokkul lu bees a. gën mais suñu waxee ne bu occasion yi moom mooy. posé ak xanaa moom pneu pneu yu bees yi am na ci ay pneu chinois yoo xam ne dafa rafet lool te amul qualité. venant bi ngay wax moo koy gën fuuf. ok problème la. on termine rapidement. bu ñu amoon usine pënë nag boo nee pënë bu bees danañ da nga am question. voilà non ci ci